moom Cheikhul Xadim moo tax liñ xam ci moom bari lu bari ci loolu lañ ko xamee am ñu farlu ci mag ñi ñoo xam ne dars bu mu mës joxe ci jàkk walla feneen euh, takk nañ ko tënk ko bind ko ku mel ni sëñ ma Lamine Diop ku mel ni sëñ Maxtaar Bintaloo ak ñemel ni ñoom yooyee nag moom lañ tënk moom la Cheikh Abdoul Ahad yàlla na ko yàlla fayal moom la tënk ci téere bii tuddee ko majmuat mustamila tastamiu ala baadi ajubati Cheikh al Xadim wa wasaaya lii ñuy bëgg a wax darsub tey bi ci benn ci dénkaane yi lu bari la ci wax buñ ci wax ci tasawuf mi ci wax ci lu bari buñ ci wax ci aqida min ci wax ci lepp lo xamne nit war nako ben da wasiya bi daje ci bir wasiya bo gis nak amna kenn kum ko don denk ben koko da koo ci mom mu bindal ko ko di ko denk wala kooka nekk koo xam ne moo jékki-jékki siyaare si wala mu dikk ci moom mu seet lam dëppool mu bindal ko ab dossier jox ko noonu la daan deme kii nag ku ñuy wax Mahmoud moom la ko doon dénk duunaka yaa Mahmoudu ma <clears throat> inchal يشفي مريدا ومرادا من غليل إن كنت سائلا عن التصوف لكي تعد من ذوي التعرف منكو يوم محمود ما Mahmoud maa من lay يلا mun خمنه boko jëfëndiko mo ndox mu sedd guy mo xamne dafa fekk ku mar lool soxla ko ñu jox ko mën naa faj maram yusfi muridan wa muradan min ghalil munako in kunta saailan an tasawufi likay tuadda min at-ta'arruf kon Mahmoud daa mel ni lii Mahmoud mii ko doon laaj Mahmoud mii mu jox bii moom daa bokk ci ñi ko ko doon laaj bëgg mu jàngal ko lan mooy tasawuf mu ne ko bu fekkee dangay laaj lan mooy tasawuf ngir nga bokk ci ñi nga xam ne boo liggéey duñ tañaxu dañuy wax lu leer lu wér min taarufi bu fekkee looloo tax nga di ma laaj dinaa la wax tey lan mooy tasawuf dinaa la wax fondement yi dinaa la wax itam la aju ci tasawuf lépp muy lu am solo muy lu ama am solo muy loo xam ne ñun ñëpp waroon nañ koy def léegi ba tey jii di jàng tasawuf di seeti ñi ko gën a xam waaye tasawuf day <laughs> bari na koo jàpp ne xam na ko xam ndax nit ñi dañ koo xaw doyadal ndax ñàkk xam ki doon def conférence fii barki démb wax na am lu am solo fii sëñ Souleymane nee na li wax ànd naa ceeg moom bu wér daf ne am na ñoo xam ne dañoo defe ne tasawuf maanaam mën naa ñàkk waaye ni nga xamee ne fiq mënta ñàkk aqida munta ñàkk naka noonu it tasawuf munta ñàkk ndax dañ naan al islaam al iman wal islaam wal ihsaan ñoom ñett ñoo ànd munoo ne jàng naa aqida ba xam ko waaye du ma jàng islaam du ma jàng fiq du jàng téere fiq yi kon doo xam noo jaamu yàlla di doo xam itam لأن لونين نين كورا دفع دوكو خب موي فقه والفروع الفقهية وايد أبشان لا منو جل لي باي لي فق نجل لب نغي جل إسلام إيمان جل إسلام جل إحسان إيمان دين لكو فيري اللي موي التوحيد الإسلام نفيري اللي موي al fiq bi furuuiha bi furuuihi ixsaan ñu ne la mooy at tasawuf ña koy jàngale loolu nañ ko jàngale woon kon ñoom ñett ak ceen la goo xam ne mënoo jël lii bàyyi lii ndax boo ko deful rek la nga xam du mat xam-xam bu mànk ngay am ki am aqida ki jàng aqida waaye jàngul fiq xam-xamam matut ki jàng aqi aqida jàng fiq waaye jàngul tasawuf ba tey xam-xamam mat ndax du xam fiq du dara tasawuf moom mooy li lay jàngal al ixlaas lii yëpp jëf yi yëpp yàlla rekk moo war a tax nga di ko def waaye loolu kenn du xëy xam ko dañ la koy xamal tàggat la ci entraîner la ci ba nga xam ko ixlaas du looy xëy rek mën ko danga koy jàng ba noppi ñu tàggatle ci tarbiya la ci kon ñett yooyu munta teqali ko islaam ak imaan ak mu ne ko nag tasawuf am na ay fondement am na ay pied am na fondement yoo xam ne moo téye tasawuf tabax bi li muy rëy yëpp fondement bu dëgër dëgër bu nekk ci suuf ci la taxaw moo tax mu mën a taxaw noonu it la tasawuf deme am na ay am na fondement bu dëgër ay fondement yu dëgër mu ne ko fondement yooyu nag juróom-ñeent la fa li tasawufi usulun tu orafu tisata لدى من يعرف جروم ينتي فنما لا تصوف أم ينقل الله أولها تلازم الكتاب تصوف فنما بجك مول بنتي نجك تك تي فنما بي موي القرآن manam li ngay def lepp day deppo ak alquran day deppo ak ndigle alquran waaw kon lima waxon mi ko tasawuf kon munta tekkaliko ak l'islam wa sunnatil mukhtar di sawaabi li ngay def léppit benen mol bi ci teggu ci tasawuf ci fondement bi moy mooy sunna nga nekk koo xam ne li ngay def lépp da koy jëlee ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo def benn loo xam ne génn na ko doo def dara loo xam ne bidaa la loo xam ne dëppoowul ak sunna wa tarkul ahwaai wa bidaai beneen fondement bi ci des beneen mool bi ci ci ci fondement bi mooy bàyyi lépp loo xam ne bànneexu kese la loo xam ne bànneex képp la teguwul ci alxuraan teguwul ci sunna sa bànneex rek la bu dee ci wax ak bu ci jëf lépp nga bàyyi bu ci jiital daray bànneex wa tarkul bidaay beneen mool bu ca des mooy bàyyi bidaa waaw bidaa bidaa nag moom buñ ci doon waxtaan fii ba suba dana yaatu ndax jamono bi ñu nekk léegi gars yi loolu tudd rek ñu ne bidaa la bidaa bidaa hada bidaa yaatu na te nag bari na ci yoo xam ne ñu ngi koy wax waaye nañ koy waxee ne bidaa la lu bokk ci diine de moom du bidaa lépp lu bokk ci diine loolo day donte amutoon ca jamono ya jigitu woon it du bidaa kon léeg nga gis gaa ni nangam bidaa la tef ci diine la bokk waaw dañoo xaw a xatal seenu seen mbir rek waaye bidaa moom lépp lu bokk ci diine du bidaa loolu nañ ko xamee noonu wa tarku al ahwaai wa tarku al bidaai beneen mool bi nga xam ne mooy nekk ci fondement bi mooy tabjilu shuux màggal sëriñ su baax si sëriñ si màggal leen jox leen seen cër jox leen seen gëdd xam ñooy ñan wattandiku di leen critiquer ak wattandiku di sànni ay kàddu yu tegginuwul ci ñoom هيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وتر هيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسالا وترهيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسالا وترهيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسهلا وترحيبا هيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر على علا وتر هيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسالا وترهيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسالا وترهيبا بلا حدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسعلا وترهيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبسر والمداد علا وسعلا وترهيبا بلا حداد يا خير ضيف أتى بالبر